bu ñu demee ba ci jeexantalu département Mbour ngeen gis li xew ay nit ñëw di sànni xeer ak di euh, euh, saaga di provoquer ñu xëy suba daal di roñ garde rapproché wu Ousmane Sonko ne ñoom la dañ leen a plainte waaye ñëpp xam nañ ne Ousmane Sonko fu mu nekk garde rapproché yi ko sori kon ñoom naka lañ leen fa mën a gisee te moom nekk fa woon te garde rapproché boobu ñu soxla woon ñëpp xam na ne ñoo Ousmane a nekkoon donc xam na li ñu ci jublu loolu ñuy wax faire le vide autour de Ousmane Sonko maanaam wéetal Ousmane Sonko ngir mën a jàpp ne dina tax ñu ne ko nuus jàpp buñ jàppee garde rapproché yi sécurité bi jàpp lideru parti bi jàpp ku leen neex bu ñu yaakaaree ne loolay weetul Ousmane Sonko mooy seen xel gàtt na lool ndax Ousmane Sonko askanu Sénégal ñoo koy aar askanu senegal ñoo koy wéttali ak lépp lu ñu mën di def mënuñu fexe ba Ousmane Sonko wéet ndax nag askan wee ko jël def ko seen moomeelu bopp jàpp ne kii bokk na ci ñi nga xam ne suñu bët yu xonq yi war nañu ko mën a toxañal war nañu mën a indil saafara yi nga xamante ne ni soxla nañu ko donc dañuy sonal seen bopp ak lépp lu ñu mën a def ci wàll boobu beneen bi nga xam ne gisaat nañ ko mooy lépp lu jëm ci wàllum bi ñu ko juge bi woowee àttekat bi ngir mu dem wuy ci waa mbokk yi nangu ngeen yéen ñëpp ne président Ousmane Sonko defaat na déclaration daal di wax ne dinaa wuy ji lii lu ordinaire la dem dikkaat incha allah jarul ku nekk na nga xëy doxi sa yitte mu xëy dem audition bi pare mu ñibbisiwaat dara xewul wala moo tee ñi defoon ko ca mars deux mille vingt et bu ñu ko defoon xëy na fukki waxambaane ak ñeent yooyu ñuy jooy du am ndax booba dañ ko bëggoon a jaarloo foo xam ne gisoon nañ ay borom yi jaar jaasi taxaw ñu ne foofu ngay jaar mu ne leen duma fa jaar tey biñ ko bàyyee moom mu jaar fi ko neex yegg na si jàmm ak salaam ndax ku xam Ousmane Sonko koo xam ne du ragal au contraire moom moo leen doon teg pression pour ñu woo ko déglu ko moo tax nag euh, ñu jàpp ne askan wi mën na seede loolu mën na seede ne lépp lu fi xewoon ñoom la ndax ñoom ci seen bopp ñoo indi woon fitna boobu bëgg ko jaarale foo xamante ni seen yoonu bopp la mu ne leen moom du jaar foofu fi ko neex lay jaar ndax yoon moo ko may loolu leneen li ñu gis mooy Ousmane Sonko dafa mel ni ku nekk prison këram saa yu bu ñu wootee wala dara waa cité kër góor gi man keroog sama bëta ma may ñoo xam ne dañuy liggéeyee ci këru liggéeyukaay bu tudd Intelsia dañoo ñëw bëgg a dem liggéey ñu wàññi leen ñu leen du ngeen jàll parce que keroog dañu commencé barikaat bi ci rond bi man mi responsable communication ma bëgg a dugg ñu ne ma doo dugg loolu lan lay firndeel est-ce que dañu nekk ci réew yoon wala wala am déet loolu yëpp nag ñu ñaan ci teg seen bët ñi war a wax nañu wax ndax dañuy faral di wax ne Sénégal xamuñu ku tooñ ku fayu lañu xam bëgguñu yegg ci fayu ñi war a wax nañu wax lillaay wa rasuli ah gis nañ ne président Ousmane ba mu demee am na lu amaa am solo lu mu teg ci kaw taabalu procureur mooy mbirum complot bi te ku gis li nekk di xew dina xam ne donc loolu lu wér la ndax am naa yaakaar ne bu doon du lu wér xam naa ne coow li fi am nii yëpp du am ni ñi jàppak ak yu ni mel waa léegi nag balaa ñuy wax naan kam moo ko génnee fu mu jaar ak nangam sàngam waa li nga xam ne wér na ñu tur ci ay doomu aadama moom dañ koy bàyyi fële rek kenn du ci wax ci réewum yoon Macky Sall moo waroon njëkk a démissionné ñeneen ñi daal di dem jébbal seen bopp ñu def enquête bu leer nañ ku ci nekk la ca say responsabilité ñu situé ko parce que bu ñu waxee complot la te lii jur ay fitna Sénégal yoo xam ne ay nit ñàkk na ci seen bakkan ay nit ñàkk ci seen alal nit ñi dëkk ci fitna am naa yaakaar na ña ko def war nañ leen woo ñu leeral ko président Ousmane Sonko nag lim ci wax leer na nàññ te am naa yaakaar ne askan wi dégg nañu ko kooku nag nga walbatiku xam nga ñoom saa yu ñu leen jekkoo rek ñu génnewaat beneen mbir pour nit ñi topp ci yow nit ki wone ne leer na ne danga nga koo complot ndax booba ba léegi yaa ngi koy fexeel ca ba nga ko dàqee ba léegi yaa ngi koy fexeel nga bëgg a wëlbatiku di ko laaj lu mu defee ADN nag yu kenn xamul deret ak euh, xaw ma lan ak lan mais Ousmane Sonko bu defoon ba ne da koy def sax ñu duñ ko nangu. parce que sa noonu nag boo ko joxee paaka bu bu bu la rayee yow la te xam nañu ni wóor wuñu leen benn yoon ba leen di jox lu ton ni pepp karawu président Ousmane Sonko gis na nag ñu bëri nekk ci ci ngawti ngawti di wax ñi nga xam ne dañuy am yenn xeetu comportement yoo xam ne dama naan bu ñu dellu woon ca jamonoy njaam mooy ñi daan jaay suñu maam yi parce que lu neex buur rek jaral na leen ñu gis lu weex tàll ne dafa ñuul ba pare wooye seen bopp neutre loolu mënul wéy ci réew mi am nañu même responsabilité que Macky Sall ci lépp lu xew ci réew mi ndax ñoom ñoo koy gën a puus ci tuuti doona yi muy def loolu nag dragaluñ koo wax te dañ koy wax saa su nekk kon dañu jàpp ni lii dafa war a leer moo tax Pastef les patriotes daal di déposé ci taabulu président assemblée nationale ngir ñu ubbi ci benn commission d'enquête leeral mbir mi déclassifier pluto euh, rapport bi maanaam ñu déclassifier ko bu ko defee nit ñi mën a xam lan moo xew te loolu jàpp nañ ne lu war a mën a lekk la ci réew moo xamante ne nii dafay euh, nuñ koy waxee ci dafa tegu ci yoon donc lii yëpp nag saa yu ñu koy gën a alimenter mooy dañuy jéem a nëbb seen ay looxoor yoo xam ne tàmmal nañu ko Sénégal dañoo dem ba léegi scandale moom daanaka lu normal la fi ñu doxal benn at te musiba amut san scandale amut ñi naan doxal nañ milliard wala joxe nañ marché milliard daa mel ni loolu moom bu ñu ko amee xam naa guléet lay doon ci nguurug Macky Sall ba tax ngeen dégg dossier quarante cinq milliards yi ñu wax ne dañ ko jëndee ay ngànnaay ak par ministère environnement waa man damay laaj dossier boobu waxuñu ne inten euh, euh, estampillé secret d'état la dossier boobu dañ secret de défence la moo tax bi ñuy def appel d'offre beeg yooyu euh, soxlawul woon ñi ñu xam ko waaw moo ne journaliste bi bi nga xam ne mooy rédactrice en chef OCCRP tudd Arwa Barkala moo ngi fii ci Sénégal te moo mën a enquête bi ak ay ñañam ñi génne dossier boobu noonu génne scandale bi waaw kooku lan la ëppalee Pape Alé moo tax réew mi ñëpp nangu nañ ne yoon dafi gàllu gauche ñëpp nangu nañ ne yoon dafa jeng boo bokkee fee defal lu tonni inama dara du la ci fekk boo bokkee feneen partagé ñetti émoji nga dem tëdd kaso ay weer ma ci profité di wax na nañu bàyyi doomu jàmbur yi ñoom Ousmane Diagne ñoom Papito Kara Cheikh Oumar Diagne ñoom Abdou Karim da ngay lima lima lim sax ba sonn ñoom Ndongo Diop ñoo ñuy wooyee tamit ay xawma farce spéciale ak yu ni mel nañu bàyyi doomu jàmbur yi ñu dellu lii mooy lii lañu war a xool lañ bët ndax du lii mooy farce spéciale bi ndax kat rapport ba la mu génne ak ñañu ñañ ca tudd tàmmal nañu nag di liggéey ak ay dealer ndax yaakaar naa ne histoire Frank Timis kenn fàttewu ko fi mais dafa war a leer nañ moo tax encore une fois may gërëm député wu Yewwi Askan Wi ndax euh, ci turu Abass Fall déposé nañu wax dëgg fa yàlla demande moo ngi nii pour ñu leeral mbir mi def commission d'enquête leeral ko loolu tamit mi ngi taabul table assemblée bi te am nañ yaakaar ne ak assemblée bi ni mu bindoo ci jamono yi mbir mi dina leer incha allah sénégal yëpp xam euh, fan la fan la yëfi jaar donc loolu moom dañu jàpp ne euh, lu lu lu mënul ñàkk la buñ demee nag ci li nga xam ne mooy wax waxeet waxati waxeet parce que Abdoulaye Wade wax waxeet lañ ko doon wax mais kii moom dafa wax waxaat waxati waxeet ndax